yow noo ko jàngatee. li ma ci ni ma ko jàngatee moo di ni pouvoir suñu borom moo koy joxe suñu borom dafa tànn président Macky Sall ne ko yaay président de la république yow yaa war a jàppale askan wi say collaborateur ak say partenaire jàppale la peuple sénégalais dugal ci loxoom waaye dañ ci am yaakaar. ndax président Macky Sall liggéeykat la président Macky Sall am na xol pour xam ni sénégalais yi sonn nañu te dañ leen war a jàppale président Macky Sall xam na ni ak euh, collaborateur ak partenaire yi mu àndal ak peuple sénégalais tuuti rek bu ñu ko liggéeyee changement mën na am. kon boog euh, li ma mën a wax ni mooy tey bis bu màgg la bisu victoire Macky Sall victoire coalition victoire peuple sénégalais bi moo ne dignitéem fullaam ak faydaam mais victoire président Abdoulaye Wade ndax xaarul résultat yi définitif dafa daal di jël téléphone woo Macky Sall félicité ko loolu mooy senegaal Sénégal génnul ci situation bi mu nekkoon ne dëkk bu boo xam ne démocratie daf fi sax dëkk la boo xam ne nit ñi ay nitu jàmm lañ moo tax euh, bu la Macky Sall wooyee ci sa wetam nga liggéeyandoo ak moom danga ko nangu waaw duma ko bañ su fekkee ne am na lu ma mën a indi réew mi moom nag moo koy seet seet ndax mën naa indil dara askan wi su fekkee ni seet na ba ni kii mën na indil dara askan wi askan wi dafa sonn te askan wi dafa ni na ñëpp jàpp ci mbir mi ndax difficulté yi mën a mën a mën a wàññeeku lu baax a baax a baax a baax kon boog euh, daal sant yàlla la daal jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi téléspectateurs yi seetaan télévision